الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي tolloon ñi ngi nekkoon ci sunu téere bi nga xam ne moom mooy riyaadu saalihiin ñi ngi nekk ci fukkeelu bunt bi bunt bi nga xam ne day jàngale ñu gaawe jëf ju baax muy baabun fil mubaadarati ila al xayraat jotoon nañ ci jël benn xadi jëloon nañ ci jël aaya ya ca rot jotoon ci jël benn xadis ñu ngi war a dal tey kon ñaareelu xadis bi ci baabun fi lmubaadarati ila alxayraat xadis bañ ca mujje woon mooy fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax naan baadiru min al baadiru bil amaali fitanan كقطع كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا loolu lañ mujjoon a jàng mooy xadis bu jëkk ci téere bi ca mooy fi Yonent bi alayhi salaam di wax rek nañ gaawe ci jëf yu baax yi balaa ak lëndëm a ñëw fitna boo xam ne day mel ni lëndëm ba da ngay gis ku xëy nekk jullit bu wér balaa ngoon a mu nekk yéeféer gis koo xam ne ci ngoon jullit bu wér la balaa suba mu nekk yéeféer day jaay diineem ci lu néew ci mattum àdduna kon xadisu ñaareel bi lañuy jël donte ne bala ñu ko jël ñu ngi wane suñu sant gu ñuy sant suñu boroom ci woote bi nga xam ne tey jii ahlu sunna yi doyloo na ñun lay yonent bi alei salatu wasalaam bàyyi woon dong ci la ñuy tënku woote woo woon nañ ko ca stade Amadou Barry yaakaar naa képp ku fa teewoon yéeg na ne ne gis na fa lu tiim lam jortoon na dana fa ñëw yal na yàlla subhanahu wa taala barkeel ko def ko jéego bu mag buy jëmale jullit ñi ci seen kàddu nekk benn waaye bennoo ca la neex yàlla ak yeneenti yàlla insha allah
عن أبي فروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فراى انهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسني فامرت بقسمته رواه البخاري وفي روايه له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقه فكرهت أن أبيته والتبر قطع ذهب أو فضة
bokk xadis bi ñuy jëkk a jël tey ki ñu koy ki nga xam ne nii moom moo ñu koy jàngal mooy kii nga xam ne mooy Uqba ibnul Xaaris mu ne dama julli sallaytu wara annabii sallallahu alayhi wa sallam bil madinati al asr julli naa ci gannaaw yonent bi ca madina julli tàkkusaan fa sallama thumma qaama musri'a mu daldi sëlmal jóg doon aji kuy gaawtu fa taqatta riqaab annaas mu jéggi ci kaw mbaggu nit ñi ila baadi xujari nisaihi ba jëm ci lenn ci néegi soxnaam ya fa fasi annaasu min suraati noonu la nit ñi yéemoo ci yàkkamte gam yàkkamte gaawayam ba fa xaraja alayhim yonent bi génnaat jëm ci ñoom fa raa annahum qad ajibu min suraati mu gis na ñoom kat yéemu nañu ci gaawe gi mu gaawe qaal zakartu shay'an min tibrin indana mu ne man de dama fàttaliku lenn ci daggitu or wala xaalis bu nekkoon ci ñun fa karixtu an yaxbisani ma daa di sib ci loolee doon loo xam ne daf may fekk ay ma fàtte ko ba mu seey samay loxo fa amarat bi qismati mu daal di digle ñu daal di koy séddale rawahul buxaari mu ne buxaari solowaat na ba tey ne yonent bi dane kuntu xallaftu fil bayt tibran min fidda ne dama nekkoon di bàyyi ci kër ga benn daggit ci wurus ci ci xaal ci xaalis fa karihtu an ubayitahu ma bañ ji fanaan ak moom mi ngi noonu moom lay wax tibr boobu mooy qitaun zahab aw fidda ala kulli xaal mbokk xadis bi li ñuy jàngal mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na jiite saxaaba yi mu sëlmal la doon aadaam bu masaan sëlmal day toog daa di jàkkaarloog ñoom def ay azkaaram waaye tey sëlmal na rek daa di jóg jéggi nit ñi jëm ca ay néegam ca këram moo sosoon ci jàkka ji mu ngi noonu këram moo sosoon ci jàkka ji loolu itamit da ngay gis yàqkat yi dañ naan ñiy tere bàmmeel ñu def ko ci jàkka xanaa gis ñu yenent bi ñu ngi ko suul ci jàkkaam te wallahi la ëpp ca ñoom xam nañ ne yonent bi kenn suulu ko ci jàkkaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ koy suul ñi ngi ko suul ci néegu yaay Aïcha jàkka ja dafa sosoo woon ak këram comme ni kër Aboubacar meloon comme ni kër Ali meloon ñoom ñépp ñu amoon ouverture mooy ubbeeku ci jàkka ji bi muy waaj a faatu la ne mboolem ubbeeku yi ñëw ci jàkka ji nañ ko fatt ba mu des ubbeeku ak Aboubacar muy wane ne tegtal bi wane ne mooy nar nekk imam gannaawam loolu la amma nag bañ demee ba jamono dox la ay buur ñëw gannaaw ba toj jàkka ji jël kër yonent bi dugal ci biir jàkka ji ca loolu itamit yarhamukallah borom xam-xam yee ko fekke woon nanguwuñ ko woon d'accorduñ ci woon kon ñu xam la la bu baax yonent bi kon dem na ci ay néegu soxnaam loolu ñu gis mu jéggi mbagg nit ñi di jàll borom xam-xam yi dañu ne loolu nekkul lu ñu sib nekkul lu ñu bañ yaa ngi premier sàppe bunt baa ngi fële sëlmal nga nga am soxla bu jàmp dara nekkul ci nga jéggi ci kaw nit ñi ñu xajal la nga jéggi jéggi jéggi ba génn jàkka ji amma bu dee kuy dugg ci jàkka ji loolu moom dañ ko bañ kenn amul droit dugg ci jàkka ji fekk nit ñi toog seen sàppe ngay jéggi seeni mbagg pour dem toog seen kanam yonent bi alayhi salaam ci xutbaam taxaw na di xutba benn waay jóge fële di jéggi di jéggi yonent bi dagg xutbaam ne ko hey yow ijlis qad azayta toogal yaa ngi lor nit ñi loolu kon mu nekk différence entre dugg bi ak génn bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na dikkaat gis ne saxaaba yi xaw nañu yéemu na ah da ngeen yéemu sama gaaw bi na am dafa am benn daggit bu ma yoroon riwaaye bu mujj bi day wane ne xaalis la boo xam ne dafa bokkoon ci zakat bi mu waroon a séddale yonent bi alayhi salaam moom lañ daan jox zakat yi moo ko daan séddale ña nga xam ne ñoo ko yeyoo léegi nag mu ne am na benn daggitu xaalis bu nekkoon dama ne woon bu may ñëw jàkka fàtte ko indaale ko ma far ko fàtte looloo taxit ma bañ bañ koo fàttewaat moo tax ma tëb dem mbokk loolu lu mu ñuy jàngal lu mu ñuy jàngal mooy yonent bi day fàtte am déet nit la woon comme ñun daane julli ñeenti rakka mu julli ñaar rek sëlmal ah saxaaba yi na ko waaw yow julli gi dañ ko wàññi wala da ngaa fàtte mu ne déet loolu ndax nu mën a nekkee ñu insisté na ko ñaar nga julli mu ne waaw kon damaa fàtte xam ne nag nit laa comme yéen damay fàtte bu ma fàttee na ngeen ma fàttali comme li li li mu xamoon da koy fàtte day wane na xamul kumpa moo tax suñu borom wax loo ko ne ko nel la alamul xëy bi xamul kumpa ndax bu doon looloo du lu mu préparé war ko indi jàkk bi ba pare fàtte ko ñu ngi noonu suñu benn maam dafa yëkkoo simmiñam dem ca tool ya di war a dagg yor yi bagage am dem ba ca tool ya ne xéey fàtte ne simmiñ ba tool yu sori mu jóge ca tool ya ñëwaat ba ci suufu rondal gi pour xool simmiñam sëgg rek simmiñ bi wadd yaa ngi dégg mi ngi noonu loolu muy wane ne doomu aadama mu mel noonu mi ngi noonu doomu aadama mu mel noonu mi ngi noonu tey fa ñu toogoon ca daje bañ dajoon ci stade ba am na benn kilifa gu mag gu ne sama portable daay réer bu ñu àndee su ko ci rajo bi mu toog ba mu yàgg mu làmp poste mu ne ah portable baa ngi nii kat gis ngeen mi ngi noonu doomu aadama moo doyati loolu ndax yonent bi alayhi salaam it wax loolu kon ala kulli xaal yonent bi ngir itamit lim ñuy jàngal mbokk lu baax da nga koy gaawe lu baax da nga koy gaawee laajal ñi bëgg a génne ay sarax boo ko yeexee rek ba muusul ba ko wala bu doon vingt mille francs la ba muusul nga téq dix millions da ko jox kii kon lu baax bu ñëwee sa xol rek gaawee ko def ndax seytaane itamit loolu mooy liggéeyam mooy fexe ba décourager la ci lu baax loo bëgg a def moo tax yonent bi gaaw loolu jàngal loolu sahabatul kiram waaye it da ngay gis yonent bi alayhi salaam ni mu xére woon ci lu baax ba xatta daggitu xaalis boobu sax nanguwu koo xaare xam ne ne masakine soxla nañ ko dafa profité dem jël ko jox leen ko yépp kon di du baree baree bari luñ mën a jële ci xadis bi ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu
رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى ثمرات كن في يده، ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه.
sunu ñetteelu xadis ki koy nettali mooy Jaabir radiyallahu anhu. Jaabir mu ne qaala rajulun li nabii sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud. benn ci góoru saxaaba yi daa ñëw ci yonent bi ci bisu Uhud araayta in qutiltu fa ayna ana waaw tey jii buñ ma reyee tey ci bisu tey bii man fan laa jëm xaala fil janna mu ne ko buñ la reyee tey àjjana nga jëm fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qaatala xatta qutila muttafaqun alayhi mu sànni tàndarma yi mu yoroon di xeex bañ rey ko loolu mbokk itamit di beneen jubluwaay ci jëkkante ci lu baax xare Uhud gis nañu ne xare bu metti la woon ca départ ba metti it ca fin ba lu dul sunu borom yàlla mujj na ci may jullit ñi mbégte ci histoire bu gudd ni ngeen ko xamee waaye na mette woon ci départ ba mooy waa Makka ñëw nañu indi ñetti junniy xeexkat yonent bi alei salaam génn madina ak junni xeexkat ñu dem ba ca yoon ba abdullah ibnu obay naafiq bu bon ba dëpp ñetti téeméer ya yonent bi ne su lu dul juróom-ñaar téeméer nar a jàkkaarloo ak ñetti junni xeex ak ñoom gis ngeen loolu di position bu doy waar kenn ci saxaaba yi ñëw ci yonent yàlla bi na ko waaw tey bi su tey bi moom su dee damaa dem jihaad ñu rey ma ñu rey ma fan laa jëm mu ne ko boo dee ci bisu tey bi àjjana nga jëm gis ngeen ña yàlla subhanahu wa taala ñu dogal ñu dee fa muy shuhada Uhud soo demee Madina tey fañ lay visiteloo da nga daan dafa yóbbu muy benn pàkk buñ leen pàkk pàkk boo xam ne gisoo fa pavillon gisoo fa tabax gisoo fa dara loo fa gis ay daggiti xeer yu ndaw am déet te ñooñu mbokk ñi gën ci xeet bi ñi ngi tëdd foofu yeneen ti bala sam ñeneen saydu shuhada wa may Hamza mi nga noonu ki gën a màgg ci ñi dee fi sabilillah mooy Hamza te mi ngi tëdd foofu ak ña nga xam ne tëdd na fa ak ñoom di juróom-ñaar fukki jàmbaar ya nga xam ne ñoo yàlla dogaloon ñu nekk shuhadaaw Uhud waaw su ma dee tey fan laa jëm mu ne ko àjjana nga jëm àjjana laa jëm mu naaw waa ji mi ngi yoroon ay tàndarma mu ne daal su ma fi nekk lekk tàndarma yi daf may tardeel mu sànni tàndarma yi daal di jël jaaseem dugg di xeex di xeex di xeex ba yàlla dogal ñu rey ko loolu itamit mbokk nañ gis ne jubluwaay ba ca am mooy kii daa nekk jihaad fi sabilillah boo xam ne ab amir bu mat amir mu yonent yàlla bi moo ko jiite ñuy xeex ak ñoo xam ne ay noonu yàlla lañu shuruutu jihaad yépp daje loolee ku ca dee àjjana nga jëm ay histoire yu demee nii nag la lenn ci ndaw ñi déggul diini di jàng tax ba problème mbirim li ci ñu takk ay bomb dem rey seen bopp léeg-léeg même bu ñu reyee yéefir reyaale ay mbokk julit mbokk lislaam da gërëm loolu kamikaze yi nga xam ne dañ koy dégg lu bari ci suñu guerre yi amma bu dee te ni shuruutu jihaad taxaw na ba nga xamee ni nii armée l'islam taxaw na su boobaa dara gënut a màgg yow ndawal julit nga xeex ba dàq say noon wala nga xeex bañ rey la loolu mooy ixdal xusna yey ni ñu ngi noonu ñaar ci ngañaay yu màgg yi xeex ba dàq sa noon wala xeex bañ rey la lu dul ne amir moo gis ne situation bi dafa laaj ñu replier wu ñu dellu gannaaw su boobaa ñépp war a dellu gannaaw kenn warul des gannaaw loolee kon gis ne ndaw saxaaba yi tamit nii lañ gise woon diine nii lañ dégg woon diine te it ajjana nii la màggee woon seen seen seen xol mooy dem aljanna daawuñu ko jëndaale dara moo tax xaaru fa naan sax dama jeexal samay tàndarma comme daal ajjana lañ jëm ilal janna rek yàlla na yàlla defal ñu ñu nit sunu mujj nekk ci ajjana ju kawe ja
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه والحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب
حديث ñeenteel ci buntu jëkkante ci yiw abi hurayra moo ñu koy nettali قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بن غور نيو نتي يننتي عليه السلام منكو يا رسول الله أي صدقة أعظم أجرا سرخي بن موتي أبيول قال أن تصدق آه وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى منكو موين جن سرخ te jamono bi nga koy def yaa ngi nekk aji wér dara dalu la yaa ngi nekk ku bëgg alal ja ngay joxe soxlawoo ko muy saxiix yaa ngi ragal ne kat ak ñàkk mën na laa dab yaa ngi mébét ngiree sa alal doon yokk nga doon koo xamee ne nii aji woom la ngay doon wala tumxil xatta ida balagatil xulquum waaye nag bul nekk di yàq di yéexe ba baa muy nokki ga di daje ci sa buumu put yi nga xam ne fa la ngelaw lay jaar qulta li fulaani kaza wa li fulaan kaza nga ne waay jox leen diw nangam jox leen diw nangam waqad kaana li fulaan ca fekk na alal ja yépp nekkoon na ñeel diw ay ñeel na say ndono léegi maadaama sukuraat nga say alal léegi moomatoo ko say ndono ñoo ko moom mbokk kon xadis bi it benn saxaabi moo ñu laajal yonenti yàlla bi yàlla na yàlla fayal ñu yonenti bi fayal ñu ay saxaabaam ñoo tax diina leer ci ñun ay yow mi yàlla yónni ban sarax la yàlla gën a bëgg mu ne ko mooy nga saraxe fekk da ngaa wér ñu ngi noonu dara jotu la nga xam ngeen nit ki su demoon tey ba médecin yi ne ko tu es condamné ci cancer ah wala nangam mu wóor ko ne fii quelque nangam mu dee ko mel noonu def lu baax mën na ko yomb waaye mën na ko bi ngay saraxe fekk yaa ngi wér ñaareel bi it mooy yaa ngi doon koo xam ne ku soxla alal ji nga bëgg nga ko saxiix koo xam ne bëgg na ko ah soxla woo ko yaa ngi ragal ne su may joxe ñàkk mën na maa dab yaa ngi mébatoon sa alal gën a bari ba nga doon ko woomle loolu kon lii lum ñuy won waa ji ku wér la ku bëgg alal la yorul sax alal ju yaatu ju na gaan ñi ndax mi ngi bëgg alal ji yaatu ku mel noonu nga jël ca la nga yor daal di koy joxe ci yàlla tax mu ne nag loolu mooy sarax bi nga xam ne mooy sarax bi gën loolu nag yeneen ci bi alei salaam mun a gaawe ko bul bàyyi ba nga xamee ne nii sag ruux dem na ba yegg ci sag put ca mooy fa nga xamee ni fa la lokk gi jaar te it mbokk ruux dafay summeeku ci doomu aadama boroom xam-xam yi am nañ ci ixtilaaf lu bari ci ñoom dañ ne jëmm doomu aadama la yor looloo tax buy génn di dem aji dej ji da koy xool di téen moo tax bët yi du ubbeeku bu faatoo ñu war a delloo bët yi léegi bu jógee ci baaraam yi tànk yi day dem di yéeg di yéeg bu yegsee ba ci dënn bi ca la waa ji di sukuraat ko defee di mel na koy xaran di ànd ak nokki gu tar moom la borom bi daan ida balagati lxulquum mi ngi noonu am na fi wax ida balagati toraqi bu dee ba yegg sa yaxi dënn ya wa qiila man roq ñu naan ana ku ko mën a mocc loolu mooy sukuraat foofu boo fa yegsee yàlla day wax malaaka yi ñu tëj say dossier soo tuubatee yàlla du ko nangu yeneen bi alei salaam nee na inna allaha la yaqbalu tawbata abdin maa lam yuy xarxir yàlla dana nangu tuubu jaam fii ak sukuraatul soo sarxee it yàlla du ko nangu mi ngi noonu maadaama yaa ngi ci sukuraat loolu nag bokkul ak nga nekk ci feebar bu tar feebar bu tar te sukuraatu ko yàlla dana la nangul looree kon ñi gis loolu la wax bul bàyyi ba baa ngay toll ci sukuraat ngay commencé nag naan nañ ma joxal diw nangam nañ ma joxal diw nangam te fekk ne sa alal léegi moomatoo ko keneen na ko moom kon la nga cay joxe même buñ ko defee du la amal benn njëriñ bi ngi noonu du la amal benn njëriñ loolu it mbokk muy wone ne war nañoo xool lu ñu yàlla man loo ñu mën ko def suñu alal ñu def ko balaa sukuraat boobu dañuy dikkal allahuma lu dul yonente bi alayhi salaam ubbil nañu benn bunt boo xamee ne ni it ku yàlla dénk alal mën na caa jaare ca mooy lu ñu tuddee wasiya sunu boroom moo ñu wax wasiya ci alquran yonente bi leeral ci sunna ne mën na dem ba sa ceeru alal mën nga ko def wasiya allahuma lu dul bu yemoon ca kaar bu moo gën yàlla may na la 4 millions am nga droit bind sa kayit wala nga woo nit ko wóolu wax ko ko bis bu ma dee nañ jël 1 million sama xaalis ñu def ci nangam ak nangam ak nangam ak nangam jox ci diw jox ci diw mooy ñi nga xam ne bokkuñu ci ñi lay doon su boobaa même booy jëfandikoo xaalis bi ba dee ñu jël loolu defal la ko day mel ne yow yaa ko sarxe loolu kon lay wax ci xadis boobu ñu ngi noonu
عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ سيفا يوم احد فقال من ياخذ مني هذا فبسطوا ايديهم كل انسان منهم يقول انا انا قال فمن ياخذه بحقه فاحجم القوم فقال ابو دجانه رضي الله عنه أنا آخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين رواه مسلم اسم أبي دجانة سماك بن خرشة قوله أحجم القوم أي توقفوا فلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم
حديث جروميل ci baabun fi lmubaadarati ila alxayraat ki ñu koy nettali mooy anas ibn malik xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam anas ibn malik nee na axaza ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam axaza sayfan yowma uhud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël na jaasi ci bisu uhud fa qaala man yaxuzuhu minni haza man yaxuzu minni haza mu ne ku may jëlal lii waay fa basatu aydiyahum saxaaba yëpp tàllal seen loxo kullu insaanin minhum yaqul ana ana ku nekk ne man man qaala fa man yaaxuduhu bi xaqi mu ne kan moo koy jël ci àq ba mu yeyoo fa ahjama al qawm ni ñépp nag daal di gàttañlu kenn waxatul fa qaala abu dujana ana aaqizu ana aaquzuhu bi xaqi man maa koy jël ci àqam fa axazahu fa falaqa bihi haamal mushrikin ba mu ko jëlee la ca toje ay xare ca boppi mushrikin yam dajale yépp mi ngi noonu mun abir jana ba mi ngi ci doon simaag ibnu xarsha mi ngi noonu kon lii it mbokku deñuñu ci xare Uhud di xare bu metti bu yonent bi gën a metti bi yonent bi jaar ca la ñàkkee saxaaba yu sësoon ci moom wax nañ leen ci sànq ñoom Hamza ñoom Abdullah ibnu Jahsh premier ambassadeur de l'islam fa la daanoo Musab ibnu Umayr ak la fa daanu ci kenn xamul lu mu toll ci saxaaba yi al muhajirin wal ansar ñu damm ca bëñam ba tocca jéem ba ila axiri muy xare bu metti lool gis nañu ne biñ demee ba jàkkaarloog noonu yi bocc na benn jaasi daa ji ne ku may jëlal jaasi bi ndaw yi saxaaba yi fi nekkoon ñépp ku ne tàllal sa loxo ne man man yow mi yàlla yónni yeneen ci bi alei salaam ne ah dama ne kan moo koy jël ci àq bi mu yeeyoo jaasi la jaasi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba mu nar a teg kenn ci loxo jurit ñi ku koy jël ci àq bi mu yeeyoo saxaaba ya ak nañu ragale woon responsabilité seen digganteeg seen boroom ngir bañ a jalgati lu ñu siñanteeg yàlla ak yonent yàlla ñu toog gàttañ lu ci noonu la benn jàmbaar di abu dujaana daal di jóg taxaw dako yow mi yàlla yónni man maa koy jël ci àqam yonent bi alayhi salaam jox ko jaasi bi ba mu ko joxee jaasi bi boo demee ci yeneen riwaay yu koy nettali nee nañ bi kooraakoor yi di am ak yéeféer yi abu dujana génn na sàppe jullit ñi dox bakku aller retour ci kanamu yéeféer yi yonent bi alayhi salaam ne doxin bu yàlla bañ a ngi nii lu dul ci place bu mel nii mi ngi noonu mooy jeune taxaw bakku doxin bu yàlla bañ a ngi nii lu dul ci place bu mel nii mooy place yéeféer yi gis ngeen ba mu demee kooraakoor ba bañ demee ba roofaloo ñu ne toj na ca la nga xamee ne nii mooy bopp yéefér yi kenn xamul ñaata bopp la ca toj lan mooy mujj rekk àqu jaasi ba dafa mujj ba jaasi ba dammatoo yaakaar naa waa njàmbur yeeg kajoor yi dañ ne waa xandoor bu daggee ci yoon wàcc na am déet mi ngi noonu daggee ci waar waaw xandoor bu dagg ci waar jaanam wàcc na dammee ci waar jaanam wàcc na naka noonu it loolu lu dóore jaasi bi ba jaasi ba damm gaa yi bopp yi daje jaasi ba jaasi damm moom yaakaar naa bopp yooyu da ngay kii moo tax ñu ne toj na ca bopp yéeféer yi lii it mbokk mi wane ne sahabatul kiram na nga xam ne noonu la ñu meloon ci njàmbaarte amul kenn koo xam ne mën na leen a fay tey ndax ba ñuy liggéey dafa yemul ak ñun suñu liggéey seen liggéey dafa jafe woon par rapport ak ñun li ñu man rek muy bëgg leen sopp leen ñaan yàlla fayal ñu leen yàlla yàlla fayal ñu leen
عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
juróom benneelu xadis bi ci baabun fil mubaadarati ila alxayraat ki nga xame ne nii moo ñu koy nettali mooy zubeyru ibnu adi qaal atayna anas ibnu malik dikkal nañ anas ibnu malik muy xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa shakawna ilayhi ma nalqa min alxajjaaj ñu jàmbat jëm ci moom li ñuy dajeeg xajjaaj du gouverneur bi nekkoon iraq fa qaala isbiru mu ne muñu leen fa innahu laa ya'ti zamaanun illa walazi ba'dahu sharrun minhu xam leen ne du ñëw mukk benn jamono lu dul jamono ba ca gannaawam moo ko yées hatta talqoo rabbakum baa ngeen di dajeeg seen boroom sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam lii day dégg naa ko ci seen yonent sallallahu alayhi wa sallam mbokko ci di anas ibnu malik mooy ku yàlla mayoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko ñaanaloon na ko fanu gudd ak njaboot gu yaa ak alal ju yaa yàlla dogaloon na anas dund na lu ëpp téeméeri at ca it nee nañu bu ay doomam ak i sëtam masaan daje ëpp nañ téeméer daana toog di gis téeméeri nit yoo xam ne ci moom lañ jóge gis ngeen kon ñaan yonente ba nangu na ci moom anas boobu gudd na fan ba dajeeg buuri lislaam yi ñëw yonente bi alayhi salaam waxoon ne ni li nga xam ne mooy alxilaafa gi day nekk fanweeri at gannaawam gannaaw ba yàlla jox ngóor ku ko neex ñooñu alxulafa rashidun mi ngi jeex ci ali ibn abi talib premier buurul islam muy muawiya donte ne muawiya boobu lu ci bari nit ñi dañuy wax ci moom loo xam ne nii du dëgg buur la woon amoon na ay ay rëcc-rëcc waaye nag ku liggéeyal lislaam la ci seen jamono islam avancé na bu baax a baax allahuma lu dul bokk nañ ci seen gouverneur yi nga xamee ne nii doomam yi fal nañ ko gannaaw ba ku ñëw xajjaaj ibnu yusuf mooy gouverneur l'islam bi ñu gënoon a critiqué yàlla na yàlla jégal ko yërëm ko ci l'islam la bokkoon waaye nag mën goo xalaat def na ko lim rey ci borom xam-xam kenn xamul nu mu toll ki mujj rey mooy sayid ibnu jubayr moom moo ñaanoon yàlla yàlla naa nekk ki muy mujj rey gis ngeen yàlla dogal moo nekk ki mujj rey mais histoire am rek doy na histoire bi xajjaaj loo xalaat ci mbon def na ko léegi nag am lenn ci nit ñi ñëw ci anas ibnu malik ko ñun dee xajjaaj jaaxal nañu lii mi def nangam nangam mu ne leen mu ñu leen xam leen neex bu fi xajjaaj jógee it mbon day gën a bari rek ndax yonent bi alayhi salaam nee na àdduna jamono boo gis ba ca gannaaw moo ko yées ba baa ngeen di dajeeg seen borom te it loolu mooy sunnatullah fil ard boo gisee lu ci bari yàlla day yokk xéewalu àdduna diine di yàqu moo tax da ngay gis ne borom xam-xam yi wax dañ naan nit ñi day yaxsuruuna min al axira ma bi qadri ma rabihu min ad dunya lu àdduna gën a yaatu rek diina gën a dellu gannaaw ci loo xam ne duñ ñu suñu maam mais yéen ñi doon dund trente ans ci gannaaw su ngeen xoolee ndaw yi keroog ndaw yi jamono boobu ak ndaw yi léegi da ngay changement bu rëy xale yu jigéen ñi nit ñuy solo léegi kenn xamu ko kenn xalaatu ko woon ndaw yi léegi boo gisee seen comportement seen waxin fanweeri at ci gannaaw kenn xalaatu ko woon na ngeen xam ne sunu ndaw yi tey yi li ñuy bon bon bon ñoo tane ndaw yi di ñëw loolu la koy jàngal suñ demee ba jamono ñëw disket yi sol ji mux awata jimi seer yi ñoo nar a nekk yaayi génération bi di ñëw ngay àdduna di tukkee ngi noonu ndeysaan léegi-léegi ma dox ci mbedd mi gis benn xale bu jigéen boot benn doom sol pantalon ju ne faaj boot doom ji ma ne ndeysaan xale bi de il est mal parti yaa ngi dégg koo xam ne da ngaa judd fekk si yaay di sol ji nag di mbox aaw kooku tu es mal parti ah gis ngeen loolu kon génération yi noonu lay demee mu ne leen nag muñ leen ngeen jaamu seen borom loolu mbokk mu lay jàngal ne société boo mën a nekk ak mbon dafay am mais yow jéemal sàmm sa bopp jéemal sàmm sa njaboot qu anfusakum wa ahlikum mi ngi noonu bul lijjanti la nga xam ne buur yaa ngi koy def bul lijjanti liy xew ci société bi fexeel góorgóorlu sa bopp fexeel góorgóorlu yaag sa njaboot ngeen muñ ci loolu te xam ne àdduna moom noonu la ko yàlla binde mooy mbon day avancé diine di tumuranke ndaw di avancé diine di tumuranke lu dul la so borom borom bi subhanahu wa taala yàlla na yàlla may ñu afiya
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن
gis nañu xadisu juróom ñaareel bi abi hurayra radiyallahu anhu moo koy nettali أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال السبعة ننجن جكنتي تيو يباخي بلا جروم نيار نيو هل تنتظرون إلا فقرا منسيا ndax da ngeen di xaar lu dul ñàkk gu leen di fàtteloo seen warugar aw xinan mutgiya wala oomle gu leen di bewloo aw maradan mufsida wala feebar boo xam ne day nekk di aji yàqal leen aw hëraman mufnida wala ngeen nekk di xaar màgget goo xam ne day dem ba naaxloo leen aw mawtan mujhisa wala ngeen xaar dee goo xam ne da leen di yóbbu ci lu gaaw awit dajjal wala ngeen xaar masixi dajjal wa charru gaaibin yuntazar mooy lu gën a yées ci lu fàdd lu doomu aadama yi xaar aw saa wala boo ngeen di xaar bi si penc fa saatu adha wa amar ama bi si penc moo gën a ñàng ci moo gën a wex loolu Tirmisi moo ko solo gis nañ mbokk yonent bi alayhi salaam daan nañuy wax ne ngàllawaay ku mën a def lu baax na ca gaaw ndax kat juróom-ñaari mbir a ngi di gaar doomu aadama juróom-ñaari mbir yu la mën a gaar mi ngi ni taxaw dox sa digganteeg jëf lu baax benn bu njëkk bi mooy ñàkk ñàkk goo xam ne lu ëpp ci doomu aadama yi suñu ñàkkee dootuñu tale ci jaamu yàlla gis ngeen moo tax mu tuddoo ko munsiya da lay fàtteloo say warugar aka bari tey ay xale yu jigéen yu jaay seen bopp lu leen ci dugal dañoo amul aka bari tey ay agresseur lu leen ci dugal amuñu lu ñu liggéey aka bari ay ñuy wër di truand ko njomlang lépp du ñu fay dugg fi lu leen ci dugal dañ naan dañoo amul ñi nga xam ne dañuy wër ci jàkkay histoire bu nañu nettali ko lu leen ci dugal dañoo amul kon ngeen gis ne ñàkk gu tar lu bari ci doomu aadama yi mënuñu ko supporter day tax ba ñu fàtte seeni warugar def lu ñu warut a def donte ne ni li muy garaaw garaaw am na lu ko gën a garaaw mooy woomle am suñ dajale woon téeméeri fuqara ak téeméeri borom alal man nga gis ci fuqara waya soixante-dix yi jaamu côté yàlla mais borom alal yi ba moytul doo ci am trente quatre trente pour cent jaamu côté yàlla mu ne wala boog alal ju leen di beewloo na am boo ko jurit day gis ñoo xam ne nekkoon nañ ci ñàkk ñu ngi góorgóorlu jaamu yàlla dem ci jàkki jàng alxuraan yàlla xëy xëy ubbi leen buntu xéewal lu ñu def amatuñu jot amu ci benn jot ku dégg bëccëg ñi ngi dang dang 24 heures doyatu leen ndax da ngeen di xaar alal boo xam ne bu ñëwee da leen di beewloo loolu lu mën a gaar doomu aadama la wala boog feebar boo xam ne day ñëw yàq seen lépp programme te mbokk doomu aadama ngi noonu ana ñaata jeune lañ gis ñu nekk seen digg doole ñu xëy xëy ñu ne it daanu na feebar masalan lu mel ne AVC daanu na AVC mënatula jóg mënatula def dara loolu da ngay gis ne ah nekkul luy wàcc mën na dal doomu aadama bi ci jamono bu nekk la nga xamee ni nii moom mooy ñeenteel bi mooy la yonente bi alayhi salaam wax mooy hërëman mu fi ni daa mooy nga dem yegg ci li nga xam ne mooy ak naax naax goo xam ne nii daf lay dugal ci dootoo xamati dara te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu da ci daan ñaan yàlla musal ñu yàlla musal ko ci allahuma inni a'udhu bika an uradda ila arzalil umur yàlla yàlla ne boo mu dundal ba ma dem ba naax xam nañ ne mag bu demee ba naax charge la bu rëy coono la bu rëy ñeel famille am déet mi ngi noonu yor fukki xale moo gën a yomb yor mag mu naax nga xam ne lu ko neex wax di sonle loole da ngay gis jullit bu nekk war na ñaan yàlla subhanahu wa taala yóbbu ko ci muy dem ba di naax naax googee waaye tamit loolu lu mën a nekk la bari na ay nit ñoo xam ne yàlla mayoon na leen alal mayoon na leen lu bari dem nañ ba xamatuñ dara dara dara kon loolu fekk sax deewaguñu lu jar a bàyyi xel la wala boog li yeneen bi alei salaam wax mooy mawtan mujhisa dee goo xam ne day ñëw ci lu gaaw rek daal di lay ah yóbbu ca mbokk dee mi ngi noonu amul logique masalan lu ñu naan doomu aadama la ci yegg pour dee amut du âge du feebar du sécurité du ñàkk sécurité dee moom bu ñëwee dee nga rek waaw doomu aadama bi ah nu nekk deewe na ko nekk deewe na ko am nañ benn ku siiwoon ci géejawaay da daan ànd ak ay tamakat moo daan animé ngénte yi ak mariage yi yàlla dafa dogal benn bis benn ngénte la dem tama yaa ngi tëgg mu dem ci géej bi fa mu doon fecce fa la daanoo fa la deeyee yaa ngi dégg fa la daanoo fa la deeyee mën naa la wax diw la tudd diw la sant gis ngeen su ko defee kon loolu muy wane amul logique biir jàkka ja la salle de classe ba la kaw autoroute bi la fu mu mën a doon dee mën na la fekk foofu gis ngeen loolu it kon yoon nañ gaaw-gaaw ci loo xam ne mën nañ ko def ci lu baax ñu góor-góorlu ci balaa dee googee nekk ñëw di ñu gaar muy juróom-ñaari mbir yooyu nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam lim na ko muy la nga xam ne mooy ak ñàkk ak woomle ak feebar ak màgget ak la nga xam ne mooy dee juróom benneel bi mooy lan mooy awi dajjal mu ne mooy masixi dajjal nee na mooy li nekk ci kumpa lu gën a bon ci lu doomu aadama war a moytu dajjal mbokk benn nit la bu yàlla di génne fi axiri zaman yeneen bi alei salaam nee na benn bëtu ndeyjoor ba day pat bu ko defee sunu borom yàlla day bind ci jéyam kafara jullit bu ko gis même bu dee musul liir yàlla dalay may nga mën koo liir amma yéefér ak naafiq bu doon yaay nekk directeur yu azhar it doo mën a liir loolu doo ko gis léegi muy wër àdduna dana dem penk ba sow yàlla dana ko may kawteef yu bari bokk na la nga ca mën a wax rek dana ñëw ci benn dëkk na maa yàlla gëm leen ma waa dëkk bi weddi ko mu ne asamaan bu fi taw suuf bul meññ du ñu am dara mu dem ci beneen dëkk maa yàlla gëm leen ma mu ne asamaan taw la asamaan taw mu ne suuf meññal suuf meññ léegi dëkk bi yépp naat mi ngi noonu yàlla dana ko may ba may ko sax mu rey dekkal doonte ne benn bakkan lay doon kenn lay rey dekkal mu nekk fitna boo xam ne la ëpp ci ñiy dajeeg moom dañ koy gëm mun a may yàlla gis ngeen ndegam ñi fi jaar la ñuy wax ñooy yàlla nit ñi daan di sëñ diw yàlla laa doomu aadama yi gëm ko ah léegi mun a may yàlla nit ñi bëri gëm ko looloo tax yonente bi alayhi salaam jàngal ñu kenn ci yeen buy taaya su jullee ci yonente bi na wax allahumma inni a'udhu bika min azabi alqabr wa min azabi jahannam wa min fitnati almahya walmamat wa min sharri fitnati masihi dajjal gis ngeen yàlla ñuy musal ci ay masihi dajjal dajjal boobu bu ñëwee kaw suuf ba jaxase fi ca la yàlla doog a wàcce Isa ibnu Maryam ma ngay wàccee ci Damas ah malaaka yi wàcce ko mu ñëw kooku mooy dem bu demee ba jàkkaarloog dajjal dajjal day seey comme ni nga xamee ni noonu la bi teex di sey moo koy rey ci Palestine la koy rey fa ñuy wax baabalu baabaluddin ci Palestine loolu kon dañ ko war a gëm ne fitna la buy ñëw waaye it daf ñuy jàngal ne ëllëgi ki sibir ku ñu gis ngay def ay xarbaax ci xarbaax yooyu dëppoowul yow gisuñu la ngay dund alxuraan ak sunu doo ñu yéem ndax xam nañ ne mënoo def ba def li dajjal di def mu ngi noonu mën na def ba def li dajjal di def amma juróom-ñaareel bi jullit war a ragal ba war a góorgóorlu ci lu baax mooy li ñuy tudd nag alaxira alaxira nag sunu borom nee na loo xalaat ci lu ñàng rek alaxira ko gën a ñàng saatu adha wa amar suratul qamar mi ngi noonu loolee di mbir boo xam ne kon ku ne ci ñun na ci bàyyi xel incha allah
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه مسلم فتساورت أي وثبت متطلعا
gis nañu sunu xadis bu mujj insha allah sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam qaala yowma xaybar mu ne yonent bi dafa wax ci bisu xaybar la utiyanna haadihi raayata rajulan bu subaa day danaa jox drapeau bi ma yor benn góor yuhibbu allaha wa rasula bu bëgg yàlla yàlla ak yonent bi yaftahu allahu ala yadayhi ci la yàlla di ubbee ci moom dëkk bi qaala omar maa ahbabtu l imaarata illa yowma is musuma bëgg jiite lu dul keroog bi sa keroog boobee fa tasaawartu laha ma yuqamtiku ñeel loolu rajaa an udaa laha ngiree yaakaar ñu wooma ci loolu fa daa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aliya ibn abi talib yonent bi woo ali ibn abi talib fa ataahu iyaha mu daal di koy jox la nga xam ne mooy raaya ba ay drapeau ba wa qaala imshi wala taltafit xatta yaftaha allahu aleyk mu ne ko demal bul gess ba bàyyi yàlla di ubbil la dëkk bi fa saara aliyun shay'a alin jóg dox tuuti dox tuuti summa waqafa gannaaw bu mu taxaw walam yaltafit wëlbatikuwul fa saraxa mu yuuxu yaa rasulallah ay yow yonent yàlla ala maaza uqaatilu naas su ma demee ci kaw lan laay xeexe ak ñoom qaala qaatiluhum xatta yashhadu an laa ilaha illa allah mu ne xeexal ak ñoom ba baa ñuy seed seede laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah nga seedeen ñu seede ne muhammad ndawal yàlla la fa ida faalu zalik buñ defee loolu day faqad mana'u minka dimaa'ahum wa amwaalahum su boobaa dox nañ sa diggan sa digganteeg seeni deret ak seeni alal illa bi xaqiha lu dul àq ba ci lislaam moom wa xisaabuhum ala allah seen regle nag day nekk ci yàlla jalla wa ala mbokk xaybar gis nañu ne dëkku yahud la woon yahud yi naka jekk bu ñu mësaan di dëkk fenn dañuy dem ci ay chaîne de montagne ñu dëkk fa moom la borom bi di wax ne laa yuqaatilunakum illa fi qurra muhassana aw min wara'i judur ci chaîne montagne ñu dëkk fa tëju fa léegi waa xaybar boobu gis nañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi fay dem di jihaad mi ngi nekkoon ci madina ay cent cinquante kilomètres yooyu loolu la lépp mi ngi nekk léegi ci biir Arabie saoudite léegi bi ñu xëyee suba am nañu attaque bu njëkk a def waaye mënuñu woon a dugg ci dëkk bi ci guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu subaa day danaa jox drapeau bi góor gu bëgg yàlla ak yonent yàlla soo delloo ci beneen riwaay yi sax day wax naan wa yuhibbuhu allahu wa rasul yàlla ak yonent tamit bëgg nañ ko omar ibnul xataab nee na musuma bëgg jiite gis nga yàlla mujj na ko nattu mu nekk amirul mu'minin waaye nee na musuma bëgg jiite sax ñaari nit lu dul guddi keroog ndax yonent bi alayhi salaam dana ki nar a jël drapeau bi ku bëgg yàlla ak yonent bi la yàlla ak yonent bi bëgg ko ca loolu mbokk mooy plafond lu doomu aadama di am waaw la gën la gën a màgg lu doomu aadama di am mooy yàlla bëgg ko gis ngeen yàlla jaamu yàlla ñuy def yépp loolu dong nga tax yàlla subhanahu wa taala bu la bëggee da ngay gis ne jeex na moo tax ñi nga xam ne tagg na leen muy Ibrahim ak sunu yonent alayhi salaatu wasalaam mu tudd leen xalil wattaxaza allahu ibrahima xalila loolu kon mi ngi noonu omar nee na yonent bi bi mu jullee ba sëlmal fajar dafa commencé gestu rek nee na ma yokkamtu ko taxaw bu baax ndax mu gis ma dégg nga waaye yonent bi waxul loolu kii da ko tënk fi mais ba delloo ci yeneen riwaaya yonent bi dana ana ali ñu ne ko ali kat bët yi dafa wannent bët yépp moo newi mu ne dem leen ngeen indil ma ko ñu dem indi ali yonent bi daal di ñaan ëf ci bët yi bët yi ne feret ñu ne keroog la ali mujj a wànnent ba muy dee gis ngeen léegi yonent bi alayhi salaam jox ko drapeau bi na ko demal demal bul wëlbatiku ba baa yàlla ubbi la dëkk bi Ali ibn Abi Talib jël drapeau bi dem dox ay tànk armée bi waat nañ ñoom ñëpp a topp ci gannaawam Ali dox ay tànk ba sori yonent bi xelam na yar mais bu demee ana lan lay proposer waa dëkk bi avant ñuy xeex ca lu ko yonent bi alayhi salaam wax mooy bul lan bul bul wëlbatiku ali fa mu taxaw la taxaw jàkkaarloog fa mu jëm daal di yuuxu ay yàlla yow mi yàlla yónni yonent bi na ko naam mu ne ko su ma demee lu may xeex ak ñoom mu ne ko soo demee na nga leen yónni ndaw propose proposition bi mooy ñu seede yàlla kenn la yone yonent yonent yàlla muhammad ndawam la suñu nangoo suñu nangoo loolu rek jeex na amatoo droit laal seen alal amatoo droit laal seen deret lu dul àq ba ca lislaam santaane ca mooy zakat ba ñu war a génne wala boog koo xam ne daa njaaloo ñu war koo rey wala ku sàcc ñu war a dagg loxoom mais gannaaw loolu amoo ci loo dara loolu mbokk mu lay wan ne bu ñuy wax ay militaire ñu dégg ndigal wala ay sahabatul kiram ñu dégg ndigal ñu nga noonu ndax ali ba ko yeneen fi naan ko bul geestu mën nañu wax rek lañ ci jublu mooy bul yox yoxi bul dellu gannaaw kasa waaye comme nee na ko bul gestu nangootul gestu yonent bi alayhi salaam dafa taxaw fa mu taxaw daa dina ko un ci lan lay xeex ak ñoom loolu it ba yàlla dogal ba mu demee yàlla may ko mu ànd ak saxaaba yi ñu daal di ubbi dëkk ba comme naka ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam digaloon loolu moo tax bu ñu lay waxee ku ubbi xaybar ci kattanu yàlla mooy ali ibn bi talib soo delloo ci ulama siira daan ca yokk yu bare bare bare bari yoo xam ne jaar na fa mi ngi noonu keroog ba muy rey ka nga xam ne mooy seen marhab baag kaza wa kaza loolu moom sunu mag ju baax ji ibbu saaxu lañ koy bàyyee yal na yàlla jégal ko ci yërëm ko waaye ala kulli xaal mbokk ñi mooy sahabatul kiram dañ leen war a bëgg war leen a fonk ñoom ñoo jihaatoon jàkkaarloog sedd baag ngelaw laag taw ba tawtee ay fan yu dul jeex ci àll bi ngiree kaddu yàlla jëm kaw wallahi seen liggéey boobu moo tax ñun ñu toog fi tey di wax li ñuy wax yal na yàlla subhanahu wa taala fayal ñu leen yal na yàlla teg ñu ci seen yoon yal na yàlla boole ak ñoom ci àjjana yu kawe ya wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad